làmb ji war a ubbiwaat le 15 mai bi ñuy mal gannaaw bu ñu defee ab bër ci weeru koor gi ñu nekkoon waaye combat bi nga xamante ni moom mooy grand gala bi ñu war a organiser le 15 fële. ca arène nationale moo géet organiser ko fii ci biir réew mi mu mel ni ki combat bi mag bi waroon dox ci diggante lag Rose ak ki nga xam moom mooy ama Amaneex tàbbi na géej ndaxte kii di Amaneex doomu Tëngéej dafa amee euh, blessure ci entraînement kon blessure yooyu moo dikkaat gannaaw Modou Lo bi nga xam ni combat diggante moom ak Ama dàq nañ ko lii ñu ngi koy nemmeeku lu bare bari bu combat di jege rek benn mbër daal di ne dafa am blessure manque de professionnalisme la wala bokk ay mbir la ngir mën a dàqaat bile combat waaye combat bi ñëpp a nga ko doon xaar ay ati ñu ngi koy wax diggante Lac Rose ak Ama Neex Lac Rose war a dellu siwaat gannaaw defetam bu mujj diggante moom ak Moussa Ndoye le 13 mai atum 2018 kon ñeenti at mu toog doon faj tànkam boobule di jeune homme bi amee woon blessure bu méttee métti ba président bu Fass Abbas Ndoye génne xaalis yóbbu ko mu faj ji war a dellu si waat euh, daanaka sax si fan yi ñu génn gannaaw bi ñu defee face à ba noppi moom mi leen Moustapha Guèye nekk seen directeur technique bu écurie Fass Euh, Fass Ndakaaru waxoon na ni kii di Lac Rose la ko war mooy victoire wala mu bàyyi bëre ba faw kon dellu si bii dafa war a effacer ay défaites yu bëri yi nga xamante ni waa écurie Fass am nañ ko kon ñeenti at mu toog Lac Rose war a dellu siwaat wane boppam diggante ak ama neex muy combat bu méttee méttee gannaaw face à bi ñu doon def sax fan yii ñu génn ñu gisoon ne Lac bi nga xam ni énervement la wane woon ak yàkkamti woon jàkkaarloog ak amaneex waaye daal combat boobu daal tàbbi na géej ndax ama neex dafa amee blessure muy lu métti métti waaye ci biir gala boobu am na yeneen i combat yoo xamante ni war nañ ko ci amal muy bu mag bi war a dox ci diggante Zarko Grand Yoff ak Baye Mandione bu Caaroy gëm sa wopp ak yeneen i komba Albouri Njambaan 2 waaye tamit ci biir jordaan dana fa dajeek doomu dàngu mais daal combat bi ñëpp doon xaar diggante Lac Rose ak ama neex dootul amati ndax ki ñu mujjee tudd di doomu Tëngéej googu ama neex moo amee blessure.